Balla Gaye ah Modou Lo dafa koy supporter. léegi nag ëppatu ko fii supporter. mosu ko ëpp waaye moom la daa bëgg garaaw garaaw la mu andee bàyyi ñaar loxo yi. maanaam noonu. nangoo duma daan duma. waaw dafa kaaw dóor boobu tamit dafa dal de. donc voilà daf koo ñëwee xoolal ma la xoolal ñëpp noonu dama tiitoon. waaw dëgg la commencement bi muy cëppi cëppi di réeg yëpp. yaa ngi doon am na confiance de. nga fii ku nekkal këram. li laa doon def yëg ci ginnaaw morom bi ñooy na wala jamono yi. parce que fa la lay am duggul sax. booy wax na dëgg wóorul. man sama moto laa naroon génn mais maa xam ne lii wóorul quoi. ko xoolal xoolal lii. baaxul nee nag. ah léegi baaxul xoolal moto yi ni muy dawee. Porque daí eu jubilo. ñëwal dem bon jubilo jubilo rek dañuy fo rek parce que combat bi jeex na ba pare xam nga ay ko la lu gën a gis ñu def gajaay li ma yekk moom Aliou Mané Beranang dal dai dai nyala pasang ngomong noi nan mul kada nudu. <laughs> No. dara ah. Yàlla nit ñi sa réew dina jëy nga rey sa bopp. xam nga nit ñi ko yeewu ni fi ne day jayu. xoolal kee ma àndal kee moo gën a yéex moo gën a dee ñëpp. Ah? man ni ma daw la may dox sa ginnaaw nga def li ma fa ma fa toog. mooy ah, jëfee waaw ña nga ne looy dem gis nga leen.